bëgg nañ ku ñu ci jàppale la route de Ngaye Mékhé ak bi nga xam ne mooy Baba Garage bëgg nañ ku ci jàppale la ca des muy nan la ñuy jàppalee jigéen ñi ak ay monde rural lan ñun ay dëkk lan yoo xam ne ay village lan ay village waa daanaka mën na ni mën na ni tey moo fa nekk kon li ñuy ñaan mooy nguur gi fi nekk nu nu jàppalee suñu jigéen ñi groupement féminin ñi nu nu mën a jàppalee nit ñi ci ay toolu maraîchage lu nu mën a jàppale nit ñi ci cadre tey dem ak ñëw lii de voilà noo ngi leen di sant nag après di leen gërëm wasalaam. yàlla na yàlla nangu ziar. tàng na mais jaral nañu ko waaw waaw ñëw nañu parce que dañu gëm non parce que dañu gëm li ñuy def rek ñu ngi ci di xeex boobu ba léegi di am yaakaar ci bu ñu xoolee jéego yi ñu tegagum ñuy gën a am yaakaar li nga ëpp importance nag mooy fexe ba ñu am une majorité très forte à l'Assemblée nationale mën a dérouler programme yi nga xam ne moom la ñu jox sénégalais yi loolu moo ci ëpp solo ñoom waroon nañ sàmm seen kàddu bu yàgg de ñu ngi doon sàmm seen kàddu boobu ba léegi kon lu tax ñu nekk fi ñu nekk tey lu tax nekk di jiite tey ji seen kàddu defe naa ne sàmmuñu ko torop looloo tax nag ñuy booloo pour sàmm seen kàddu waaye bu bay wéy waaw nañu sàmm nañu des ci sàmm rek. d' accord mi ngi noonu. Euh, am na solo ba tey ñu ñu sant ak yéen. waay waay waay. taxawal waay taxawal waay. yaa booy nuñ leen. Hmm? nuyu nañ la. yaay looy defar nii. ah bat si bi laay defaraat. waaw. Ah. alors euh, tey ñëw nga fi nga xam ne moo di ci Dakar Arena ci JK meeting bi gis nga euh, li nga xam ni moom moo fi jotam euh, lan nga ci wax. a ah, lu dul bëgg ki ñu bëgg rek moo ñu tax a ñëw man damay jaay marché mais dama bàyyi njaay wi ndax moom. yaa ngi jóge fan. HLM. HLM waaw HLM 1 laa dëkk. ñëw fii si arène bi bu nekk pour pour pour suñu président bi rek. waaw parce que jaral nañu ko. jaajëf. yaa ngi daw de. waa lii lu mu Ouzin. nani saliya dundu kuma ni kuma la nani ba ma saliya sonko kumani kumano nani ba masariya yagay fay yarama yagay fay international yagay fay wallahi wallahi xoolal say journaliste say journaliste international xoolal jigéen international xoolal journaliste jigéen xoolal journaliste góor yarama yagay fay barika barika barika sama papa barika jaajëf ñu euh, dem am na benn leer boo xam ne agsi na ñu dem euh, fexeel ko euh, jëlal en direct fii nga xam ni moom mooy ci Sunugal 24 yéen ñi nga xam ni yéen ñu topp encore une fois en direct fii nga xam ni moom moo di ci Dakar Arena ñu dem nag jëli ji kon ki nga xam ni moom mooy leader boobu la nga xam ni moom moo ñëw même Diomaye parce que dañoo xam ne ñoom dañoo bëgg Sénégal te ñun aussi ku bëgg Sénégal ñu bëgg la ndax amuñu dara lu dul suñu Sénégal. ma leen di remercier bu baax a baax seen présence. merci beaucoup jaajëf nee na kaay salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah teewaay bi. teewaay bi ah ki ko jar rek moo ko jar moo tax ñëpp ñëw teew. waaw man maa ngi jóge ba HLM 1 ndax moom. di jaay nag marché dama bàyyi sama tissu yu may jaay ndax moom. waaw di ko ñaan ah? a rek li mu wax ba ñun ñëpp topp ko loolu moom a nga remarqué si moom. Mhm. waaw. projet bi liir nga ko. non non liiru ma ko déglu nga ko. non non comprendre doo ci dara. Ah, am na loo si jot a loo ci comprendre. Ah, li mu wax rek laa comprendre rek. li mu wax rek waaw. waaw li mu wax rek. waaw li mu bëgg. li mu wax rek la comprendre ñu ngi koy jaajëf bu baax a baax. Ah, mu nekk lu am solo gis nañu baax a baax. gannaaw yow sa drapeau bi nii la kaay ma voilà mi ngi noonu euh, kon ñu jéem a xool yi ban leader moom moo euh, agsi fii nga xam ni moom moo di ci euh, Dakar Arena yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp ci Sunugal 24 jàllale TV en tout cas moment bi ñuy waxe ak yéen nag fii la nga xam ni kon moom moo di voilà moom moo di ci dakaar Arena stade bi nag daal di nay fees. Ah, del del del mais aussi ci biti itam daa jinay fees ba sax ah, mën naa ni foo saani mbatt mu takk ah, fi nga xam ni nag fii la leader duggee voilà foofu lu ñu jëm doonu gis ngeen am na ci ni ci ay leader yoo xam ni kon ñi ngi noonu su ko defee ñu dem a dem rek ci ñoom jëlal leen ñi nga xam ni moom moo di seen ay voilà kii ji seen kon mu mel ne xorey si Thiam l'international maa ngi jëg demal voilà moom Khoureychi Thiam l'international kon moom moo euh, nekkoon doon yëkkati euh, kàddoom euh, ci micro ñi nga xam ne ay taskatu xibaar lañu mu mel ni que nag. waaw waaw yaakaar naa mënu cee ñàkk mënu cee ñàkk moom mi ngi ànd ak Mara Niass ah. mi ngi ànd dañuy ànd ak eh, kii lay di Mara Niass euh, salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu xam naa waaw eh. waaw yow ba yaa ngi si jàmm. RTS wala yaa ngi maa ngi RTS RTS Sunugal 24. alay tooñ Cheikh bi ñi ngi sant yàlla. naka yëngu yi. ñi ngi sant bu baax masa coono. yow nag war nañ laa yóbbu nga jël vacance. ah bu ma xoolee rek sama xel ci bunt fële lay dem. dèjà lay ngi lay dégg. maa ngi koy bégee. alors lan nga doon mën a wax ci bisu tey bi. waaw sant yàlla. Euh, di di di ñaan yàlla suñu borom. ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko alhamdulilahi rabbil alamin Euh, di ñaanal yàlla président Diomaye fay yàlla na yan bi woyof di sant président Ousmane Sonko ci lii nga xam ne tey woowaat na ci senegal yi mooy lan jëf xam nga projet bi lii ñuy laaj képp ku ko man da nga koo war a joxe xam nga lu tax am na ñoo xam ne dañoo war a weñ seen loxo yi sax ñu joxe ko force xam nga lu tax ñu war koo joxe lii dañuy tabax Sénégal ku ci deful saw ñaq wallaahi di nga ko réccu waaye suñu xel gën naa dal keroog bi ñu nekkoo ci pouvoir bi ba noppi di continuer di def lañu daan def mm-hmm. bu doon Macky Sall xam nga ne campagne nag keesu état bi yëpp bu doon Macky campagne na ko waaye waa ji na du ko laal du ko jege gars yi waa ji jàngale waat na lii rek daf lii kii kii patriote la mm-hmm. daan ne Pastef lañ daan def ba agsi ci nguur gi dañ koy continuer mm-hmm. cheikh bi nañ leen xalaat loolu lii kenn mësu koo def Sénégal moo tax Sonko mooy patriote ñu ngi koy ñaanal yàlla mu woyafal yan bi mook président Diomaye fay ba ñu yeggale incha allah Ndeye Cheikh Bara gis ñu def ko ci la ñuy wax waaw loolu loolu ñëpp ci kontaan ndax ndax ndax ndax ndax Sonko bu soxlaa ku soxla ñàkk hmm. xam nga Cheikh Bara dane woon du falu hmm. ñu ne ko yow doo fal sa bopp di Sonko na ko kaay falu. na falu te ne te ne ni ko waaj wax te kii rek. te wëyal rek te am na. Kébé Sunugal 24 mayoo ma dara. am mi nga xam ne may ma waaw. voilà mi ngi noonu dégg ngeen ko kon moom mi nga xam ni moom mooy. Euh, Mara Niass li nga xam ni moom moo di sa réaction li nga xam ni kon euh, wax na ko ak itam euh, kile nga xam ni kon moom di Cheikh Bara Ndiaye def gis bi nga xam ni itam def nañ ko ci lissi mu nekk loo xam ni rafetlu na ko bu baax a baax kon mi noonu ñu continuer ak yéen ba tey file nga xam ni moom moo di en direct ci vingt 24 ak itam ci Jàllale TV ñu libaas ñu dem nga xam ni rek moom moo di jël yenn ci réaction yi jaajëf gisee euh, américain bi dafay wax toujours the way yu get to the power hmm. make sure you stay the same way for you to be able to stay in the power because at the moment that you stop doing the things that get you to the power you gotta start counting the day for you to be out of power hmm. mooy li indi ba nguur na nga fexe ba na ko sàmm boo nekkee ci nguur mm-hmm. ndax bés boo ko bàyyee. Mhm. commencé lu wàññi. Mhm. bés ba bés boobu nga ko bàyyee. Mhm. commencé lu wàññi say bésu génn ci nguur. te yàlla dafa def ni dañ fay def lu fi kenn defut. Ah, mooy sey militant nga ne leen kaa bokk. Mm. ñu ne lan ñu ne la bokk naa nga ne ko déedéet mu ne dama bëgg yéen ngeen ñëw ànd ak man ñu defar Sénégal. buñ koy defar kenn ku ci ne sa dërëm ak sa dërëm jaaykatu boutique bi jaaykatu gerte bi euh, ménagère bi. ki nga xamante ne sax amul liggéey di fortaatu ba jëm nag ba ki nga xamante ne dañ koy fay si li nga xamante ne mooy l'argent du contribuable donc loolu rek war na dal xel te war na mën a euh, yóbbu vision bi fu sori ndax defarum Sénégal du benn nit a koy def ñëppay ànd def ko raison pour laquelle tey ngeen gis ñëpp ñëw donc mobilisation boobu mi ngi déparé ci kenn am xalaat bokk koy nit nit yooyu def benn projet sénégalais yi ñu jaay ko sénégalais yi jënd ko cinquante quatre pour cent ci cent tey ñu jëm ci yeneen joŋante yoo xam ne daf ñuy ñoŋal li nga xamante ne mooy li ñuy wax asseoir ce pouvoir mooy législature parce que gagné nañ magistrature suprême ca fee nga xam ne mooy élection tey ñu jëm ci li nga xam ne mooy législature parce que dañ koy soxla pour mën a légiférer des lois pour mën a doxal tey la Sénégal gën a soxlawaat ay dox démb tey la ñu gën a soxlawaat mobiliser li ñu defoon démb mu baax tey lañu gën a soxla ñu defaat ko mu gën a baax